C'est une ak qui ci une rubrique infonet de xibaar site d'information en ligne al ñaar fan ak ñaar ci au février ci 2014 Gawlo point net lañ koy tàmbalee nee nañu Cheikh Yérim sek di ab taskatu xabaar fi ci Sénégal dafa nam génne ab livre ci weeru mars wi ñu jëm livre boobu le nag da koo ci lu toll ci ñaar téeméeri page ak lu ko préface bi di bindkat bii di Cheikh Amidou Kane ci préface bi ba tey ñu jël ci kàddu Cheikh Amidou kan nee na livre bi nga xamante ni nag la Cheikh Yérim Seck euh, dëxañ ci lu ci ñaari

Gawlo point net la ñuy waat ñoom nag nee nañu boroom Sénégal TV ku ko dégg comme sa xel dem ci ki nga xamante ni moom mooy Mamadou Lamine Mbengue nee nañu nag dafa nekk ci dafa bokk ci ab concours boo xamante ni waa Google ñoo ko def ci loolu nag nee nañu Lamine Mbengue di doomu réewu Sénégal bokk na ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci finaliste yi waaye nag mu mel ni Lamine Mbengue moom la ci Afrique francophone maanaam ñi nga xamante ni dañoo tënku ci làkkum français nee na ñu mennum Sénégal menn moom moo ci participé ci loolu nag ñuy ñaax askanu Sénégal xeek ngir ñu voteel ko ndax nee naa leen suñu gagné mel na ni Afrique francophone yëpp a

Seneweb la lañuy seeti nee na ñu jege ñaale Karim Wade yi dañ leen tere woon ngir ñu def seen doxu ñaxtu gi ñu namoon waaye mu mel ni nag dafa mel ni def nañ lu ni mel ndax def nañ ab doxu ñaxtu ginnaaw ba ñu yegsee nag fa nga xamante ni fa lañ nammee woon daje ca lañ teg loxo ñi nga xamante ni ñoom ñooy coordonnateur yi maanaam Demba Dang ak ñi nga xamante ni ñoom la ci àndaloon. réew mi point com lañ koy jeexalee ngir tontu waa RADDHO gi doon sàkku ngir ñu jugé wala ñu bàyyi ki nga xamante ne moom mooy Karim Meïssa Wade suñu Sénégal di Macky Sall yëkkati na ay kàddu fële la ca rajo France International. maanaam RFI Nena na du politik way politique bu mën a wax ba yoon du def liggéeyam ci mbiru Karim wala gars yi nga xamante ni dañuy yëngu ci kuréel yiy xeex ak ak yelleefi doomu aadama ndax dena suñu réew di Sénégal dafay dund ci li nga xamante moom mooy démocratie mbokk ya xarit yéen ñi safoo woon doon suivre seen rubrique infonet ci biir euh, Sénégal TV yegg si nañ ca cappaandaw ga tey dañuy jaajëfal Anna Diatta jigéen gu mën góor gi faaxi ci wàllu caméra bi ak euh, ci njàppandalu Ibrahima Touré moo du joxaan ak euh, Pa Omar Diop jaajëfal ki nga xamante ni moom moo faaxi ci wàllu montage bi di Talibé Baye Moustapha xanaa rek comme dama leen di jox dig daje ni ki ëllëg lay doon incha allah.